lan lay doon. lan lay doon parce que bëgg nañ ko ñu embauché waaw bëgg nañu embauchement bi trop quoi parce que ñu ngi daj loo xamante ni vraiment neex na trop quoi waaw parce que affaire yi kontaan nañ quoi massa moom si gin nañu quoi li ñu gën a bëgg nag mu yokk ñu quoi waaw bu ko defee nag embauchement bi daal na ci gën a jàpp quoi. jafe que jafe-jafe yi non jafe-jafe yi moom massa dindi na ko waaw ci liñ gis dindi que suñu salaire bi nii yokkal nañu ko quoi. waaw li ñu bëgg nag maanaam rek ñu jox ñu daal suñu gëdd quoi bëgg nañ daal lu mel noonu quoi. li nga xam moom moo di projet bi mu nar a lancé nan ngeen ko jàngatee ak ban impact maanaam ban solo la nar am ci ci ci euh, askan wi. waaw projet bi mu nar a signé importance bi mu am ci euh, euh, population bi sunu doom yi nañ ci liggéey doomu keneen nañ ci liggéey. lo am solo ndax doom yaa ngi ci kër yi dañoo toog sunu doom yi jàng nañu ba am ay bac amuñu fu ñu liggéey amuñu fu ñu dugg kon bu lancé projet bi pour askanu Sénégal askanu njëriñu réew mi la njëriñu yaay yi la njëriñu papa yi la ndax ci sa doom am chance nga liggéey ci bu jëriñ sa yaay jëriñ sa baay kon Macky daal jaaraam. waaw ñun waa UGG bi ñuy lañ ci dugg am nañ ci ay ati at te ku ci nekk fi nga jànkoo fi nga màggee fi nga bëgg a tubaar fakal la Mass Thiam nag ñëpp jaar ñu fi jaar ñëpp baax lañu waaye Mass Thiam daa ñëw jàppale ñu Mass Thiam moo ci raw Mass Thiam yërëm nañu Mass Thiam jàppale nañu waxuma dara waaye xale yi nga xam ne amuñu woon métier maas caam tax na ba xale yëpp di liggéey jël na leen ñu doon ay journalier ñu ngi liggéey heure di wàcc heure dëkk bi foofu dugg xam ne set na xam nga ne tooy ni ma bës nga ñëw di fi def sa programme xam nga ne waa mbalit mi kon liggéey nag di meloon jéggi na dayo torop est-ce que tey projet bi ñuy lancé jàpp nga ni war na mën a régler jafe-jafe yi ndax ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci terrain bi ñoo régler ma bës ba nuñ fee taxaw kon su ne dafiy ubbi xam ne dañ koy liggéeyee kon loolu ñun tiituñu ko te too ngi toog pour xaar ko lenn rek laa yox gouvernement bi Macky Sall xam moom la ñu yàlla boolee muy sunu président ñu ngi koy xamal ñun waa mbalit mi yàgg ci mbalit mi amuñu ay kër amuñu ay kër jaaxle nañu ay jaboot lañu amuñu ay kër dañuy luye ba bële ñu luye am nañ ci ay ñeent fukki at yu manqué léegi ñu retraite dugg te amuñu ay kër am nañu ci jot retraité ba léegi amuñu ay kër suñu droit yi droit yi nga xam nag ama moom moo ne woon daf ñu koy fay ñu di ko xaar di ko ñaanal nag ndax nag njariñ la ci réew mi njariñ la ci réew mi te yaakaar nañ ko taw xalal waa mi ñëpp takk nañ seen dikk pour jàppale Macky Sall